ñàkku karange gi mi ngi wéy ci dëkk bu sell bi di Touba ndaw lii di Sëwru Mbay dañu ko agressé ci bëccëgu ndara kàmm mbir mi nag mi ngi xewee fi ñuy wax marché gaar bi di bërëb bi nga xam ne mooy làquwaayu ñaw ñaawte fii muy dikkaat ci mbir mekk na mu demee ma jóge fii suba teel di jaay xam man damay ñëw di jaay di ñëw di jaay vaali nii te sama xel bi nekk ma ne ah naa dem côté marché ñend léegi ba ma demee côté marché ñend fekk jeexal naa sax boobu dama doon ñibbi war a war a dem marché Ocass jëm jëndi tiise léegi nag ba ma ñëwee ba ci marché ñan bi xam nga ma ma prolongé mooy fi ministère yi nekk ma jaar noonu ci marché gaar bi man mosuma xam ne foofu am nay place sax ma gis ay nit yi taxaw foofu noonu may continuer di continuer ba ci ba bëgg a àgg ci garage yi mooy fi sareet di nekk taxi yi fi may tourné yeneen ñaari booy kar ma taxaw sama kanam yeneen ñaari booy nekk sama ginnaaw boobu maa ngi ci mbedd mi di dox rek fii jaar nit ñi jaar rek man fa laa jaar di dox rek ndax man boobu sóoraale wu ma dara waa ci marché gaar bi léegi na ñaar ñi nekkoon sama kanam nag dañoo yor paaka man ñu yor paaka bi nag laa ñoom ñoom laa doon xeex la paaka yi laa doon reporté man ma may kii paaka bi bu ma ko mu daanu la ma dagg fii nii si tabax yi leen génne ñoom ñoo ngi génne biir yor ay gens yor ay sàngara man maa ngi boobu maa ngi leen di teg bët nii waane boobu awma si ñoom soxla léegi nag ba ma tourné ba may tourné nii di kii la ma kii dóor ni birig bi bi waa ma wàcc ma reporté sëgg sama jeune bi ma nekk fa di xeex ak ñoom di xeex ñi nekkoon si marché bi ñii di chauffeur taxi dugg seen taxi ba ma pare man leen yéen saa yéen ni ngeen def rafetut yéen ba muy juyore war ngeen te mën a taxaw. moom ndawul marchand ambulant ko yóbbal ci ay koppar ëpp na ñeenti junni di ay robb yoo xam ne ñëwoon na ko ba nopp ngir jaar foofee ngir jëndi bagage. la mbir mi dale ci kawam. ma jeexaloon yor sama xaalis rek ah daanaka motoon na ay six rob rob bu ne laa ko jaayee waaw. ñaata la xaalis bépp la yóbbu moom. si robe yëpp kaamil waaw waaw dara ba ma moo tax ba ma ñëwee ba hôpital ba ma ñëwee ba hôpital bu Touba bi bii mhm. yoruma lu ma fajo te mënu ma faa dem li ma waa ne ma si porte bi mu ne ma da ngay dagg tike 1500 man ko man yoruma lu ma fajoo man ko léegi da ngay ma dem Mbàkke moo ñëwee Mbàkke nag léegi foofu nag laa jël foofu laa fajo kon nopp bi moom jamono ji dafa dagg. waaw dagg ba ñaw mhm. waaw waaw dañ ñaw. Mhm. birig lan ko door birig birig moom moo xam naa ne ëpp na birig moom bu toll nii ndax birig bi moom ba muy ñëw ba ma dóor dama miir mhm. birig moom ba ma ko dóoree fii dama miir dama reporté dama miir mhm. waaw non carpe wala mën na daanaka mën na diis nag ndax booy am na ji tol ne mhm. am na ñu mag am na ñeneen ay digg doomu groupe lañ waaw dañoo bëri non man du ma yuux moom ndax dëgg yàlla bu ma doon dee du ma yuux waaw bu ma doon dee sax du ma yuux ndax man góor laa waruma yuux lu may yuux laa xamut ndax man lii maa ko liggéey damay nekk ñoom ba dee rek man ba ñu ma si woon ba dee sax. bokk na ci itam li ñu ñaawlu gannaaw ñàkku kaaraange gi nga xam ne nemmeeku nañu ko foofee di gaar bu mag bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom bi mbir yi di xew nit ñi dañu ko doon seetaan maanaam kenn wàlluwu ko. moo tax frappé na ma damaa jaaxal man ba ma ko ji damaa tiit moo tax ma dal seen ko ñoom chauffeur taxi yi man yaakaaroon naa Touba moom lépp mën naa am fu ne waaye loolu moom du am ci dëkk dëkk bu sell bi Touba fekk nit kuy dox bëccëg di ko agressé moom moo maa ngi koy soog ji sax te man def lan ma ko. yooyu nga xam ne dañu koy nemmeeku ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina fi ñuy wax gaar bu mag waaye juróomu jigéen di xam le ne mbir yi bett na ko lool waaye tamit metti na ko di sàkku ci kilifa yi ngir ñu gën a taxaw ci ñàkku kaaraangi gu am ci dëkk bu sell bii di Touba. ñu ko reyoon tey ah dana ndax benn la amul rakk amul mag am ah, moom dong lañ yaakaar ak yàlla day kay di foraatu rek di indi waaw njabootam ak ni jabaram ak dëgg waaw yàlla rek lañ yaakaar ak moom mm-hmm. waaw oh, lii de war nañ cee wax na Touba moom lii waru faa am Touba Touba ci boppam lii waru faa am lii waru faa ne waaw ndax kër diine la waaw ñàkku kaaraange googu tax na nag ndawi takki der yi nekkee ci guy mbind wàccoon fa ngir raxas bërëb boobu le ci ñaawteef yi nga xam ne daf fiy faral di am lu yàggul dara ci ñu nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba amoon nañu xemmem teefu nag marché boobee ngir defaraat ko laataa ñu koy defaraat nag ñaawteef yi ma ngay gën di wéy ca boobule bërëb